un sujet pas du tout gai mais malheureusement on va en parler Marcel Farba Maroun tey excision wàllu xarafal jigéen moom nga moom nga xëyee. Mm-hmm. keroog maa ngi doon wax ci li nga xamante ne moom mooy les violences sexuelles yi jigéen ñi di subir on peut mm-hmm. dire que euh, excision euh, bokk na ci euh, donc prétexte bi rek démb ci parution mercredi. Mm-hmm. bi nga xamante ne journal Le Quotidien moom moo ko def dañ daal di daal exposé ay chiffres yi nga xamante ne excision la ca Vélingara plus précisément lañ ciy def taxaw seetlu. des chiffres qui font froid dans le dos ndaxte bu ñu sukkandikoo ci benn sage-femme au centre de santé bu Vélingara nee na ci euh, fukk ak juróom-ñeenti jigéen yoo xamante ne dañoo toll ci entre ñaar juróom euh, ñett sax juróom ba fukki at ak euh, ak ñaar ñu leen consulter ba gannaaw ba leen consulter. ñu gis na ne ay séquelles yu garaaw garaaw la ñu la ñu gis ci li nga xamante ne mooy seen i partie intime mu di ay conséquence excision mm-hmm. yi ñu jot a subir. donc mm-hmm. bu ñu sukkandiku nag ci kii di Koumba Baldé nekk député ak présidente association pour l'autopromotion des femmes du Fouladou comme si waa 2A 2F nee na nag intérêt euh, <coughs> jigéen yooyu noonu seen euh, conséquences yi ñu ci euh, yi nemmeeku mooy que ablation totale ou durcissement du sexe tumeur ak obturation d'une partie du sexe ak cicatrice euh, ci li nga xamante ne moom mooy les parties euh, intimes dañ mën nañ traîner itam ay fistules ak manifestation euh, yi nga xamante ne elles sont honteuses noonu la ko décrire vivre ay hémorragie suñuy suñuy en tout cas bu ñuy nekk ci accouchement éprouver itam ay douleurs lors des rapports sexuels vivre des traumatismes à vie ou bien se mettre en marge de la société tekkeeku société bi carrément di dund donc benn traumatisme bi nga xamante ne dafay jóge l'excision sornophatie. l'excision Sénégal. Ah, justement, donc plus euh, amplement les chiffres euh, de l'excision, la pratique de l'excision au, au Sénégal, naka lay présenté wu selon euh, plusieurs chiffres fournis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie waa ANSD, plus d'une fillette sur dix Euh, subit l'excision au Sénégal ou encore euh, près du tiers euh, des femmes ci 28 pour cent en 2010 ñu gis ne ne quand même taux baa ngi wàññeeku nank-nank mais encore il faudrait de, de lutte dans ce sens le taux atteint 26 pour cent en, en et puis plus ans yi nga xamante ne

di pénaliser la pratique de l'excision au Sénégal ñu daal di koy adopté gannaaw nag benn bi nga xamante ne benn groupe jigéen parlementaire ci assemblée nationale ñoom ñoo ko doxal et puis la loi 99 tiré 05 du 29 janvier 1999 mmh. euh, fexe ba pénaliser pratique excision introduire ainsi ci article 299 euh, bis bi di prévoir mmh. benn euh, peine de 6 mois à 5 ans ki nga xamante ne moom mooy pratiquer excision bi et puis la loi sénégalaise di prévoir tamit ak de six mois à cinq ans à l'encontre du ou des parents euh, yi nga xamante ne dañ euh, dañoo en tout cas nekk ay complices en quelque sorte euh, ci mutilation yooyu noonu peine maximale dañ koy nar a appliquer lorsqu'un membre du corps médical aura commis cette mutilation tamit et puis ñuy fàttali que constitution du Sénégal dans son article 7 dafay wax ne rek que tout individu a droit à la vie à la liberté à la sécurité waaye tamit au libre développement de sa personnalité à l'intégrité li nga xamante ne moom mooy la protection contre justement toutes les mutilations physiques soxna Fatick. aywa ñu jeexalee ak les chiffres dans le monde. il n'y a donc pas hein, que le que Sénégal mais on se rend compte que lu mel ni Afrique ak réew Moyen-Orient yu bëri euh, ñoom dañuy faral di pratique lu bëri bëri li nga xamante ni moom mooy fléau boobu et dans une moindre mesure en Amérique euh, itam en Amérique du Sud en Asie et même en Europe euh, selon les dernières données OMS ñu gis na ne que au moins 200 millions de femmes dañu daal di subir excision dans 30 pays dans le monde mu di benn considération bi nga xamante ne OMS benn étude bu OMS daal di def di considérer excision euh, comme une mutilation euh, sexuelle en plus du Sénégal donc ñu gis ne ne euh, fukk ak ñaari réew dañuy distingué pratique boobu noonu lu Belgique Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Érythrée Éthiopie Guinée Indonésie comme je le disais en majeure partie des pays africains Kenya Mali Nigeria hélas au Soudan également soxna Fati. aywa Marcel Farba Maroun c'est pas un sujet très très très gai te réalité la ba léegi Chérif naam ay jéego euh, ñu ngi ko ci doon dox ak yoon ak lim ci doon def on a vu quand même des campagnes de sensibilisation partout dans le pays surtout région yi nga xam ne foofu la excision bi ëppee mais terewul ba léegi Chérif am na ñuy làqatu sax di ko def fii nga xam ne moom mooy moom mooy Dakar. mooy Dakar parce que mbiram aada ci bëri xam nga aada dafa foon soxna faat yi moom moo tax quand même plaidoyer nag nit ñaa ngi koy def ba léegi ay jéego également la même chose parce que muy ministère de la femme muy ñi nga xamante ne quand même mooy ay ONU Femmes en tout cas organisation yu bëri ñi ngi fii ci Sénégal di ci def euh, taxawaay yu am solo su ko defee kon nit ñi quand même mën a bàyyi pratique yi nga xamante ni seetlu nañ ni aussi ci wàllu wér-gu-yaramu jigéen ñi. waaw baaxu ci même ñoo xamantam dund nañ ko gis nañ ci également yoo xamante par seen expérience ñi ngi wéy di delluwaat fi nga xamante ne mooy seen dëkku cosaan yi di wax ak mag ñi su ko defee kon petit à petit quand même ñu débarrassé wu ak pratique yi nga xamante ne jàpp nañ ni bokkul loo xamante ni daal méngoon na ak ni àdduna di doxee parce que li ñu war a mettre en avant c'est la santé également de la femme euh, ku ne xam ne yenn saa yi nag bu ñu yeggee ci yu mel ni daal gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ko dund moom la ñuy témoigner te jàpp nañ ni war nañ ko weesu. aywa muy loo xam ne Malick très laata ñuy dalal Cheikh lu lu lu lu yéeme la. lu yéeme la lu metti la xëy na ci ay jamono. Euh, ñoom maam daan nañ ko def waaye xëy na xamuñu woon njeexital bi muy am dëgg-dëgg mm-hmm. euh, ci wàllu jigéen ñi mais ñu defee ay gëstu ba gis ni lu muy lor ci jigéen bëri na mm-hmm. euh, ci la campagne bu mag am ci biir Sénégal vaste campagne de sensibilisation ba pare ci wàllu yoon yi tamit ñu pénaliser ko depuis 1999 mm-hmm. nga gis da nga doon gis sax ci yenn région yi ñu ko doon pratiquer jigéen ña ko daan def mm, jël matériel bañ ko doon defee sànni ko wane ni ñoom ñoom bàyyi nañu mhm. donc mbir la mu nga xamante ni lu metti la lu naqaree wax la mhm. parce fa nga xam ne euh, fa la ñuy euh, xarafal jigéen yi dafa dafa sori mhm. te am na ñetti façon xarafal yu nga xam ne benn bu ci nekk dafa metti te loolu yëpp dafay indi ay loraange muy fistule muy wàllu njur lu ci nekk ñu ko ci am kon bàyyi ko mooy li gën voilà euh, ci waroon am ne ñu duñ ko ci am ndax excision bi moom moo ko indi bodd gi ñu leen di bodd ci yenn jàngoro yoo xam dañuy dem euh, ba tu jafe-jafe yi daal bëri na yaakaar naa buñ ko toogee di ko wax fii euh, duñu fi jógee lu ci mën a am la campagne continue la sensibilisation également euh, bu ko defee ñu daal di dem léegi-léegi ñëw fekk ji Cheikh Diop